Allez, avant de parler de l'album euh, Mado nous propose ce matin euh, benn culture boo xamante ni mu ngi jógee euh, ci dëkku asiatique yi ñoom Japon ñoom Chine euh, ñu tuddee ko parce que j'arrive pas à prononcer euh, réflexologie au lieu de sociologie euh, on va parler de... nos un peu ou voilà. garde ça Ouais, le temps on enlève la un tout petit d'accord voilà. Ah, on la remet Garde si voilà. Ah, ah, Donc, comme ni nga ko waxee Pape Cheikh, aujourd'hui, on va parler de réflexologie. waxoon naa leen ko sànq. genre euh, benn technique la boo xamante ne au fait, c'est des massages, on peut dire, euh, ou euh, plantaires, mm-hmm. ou mammaires, façon moo am mais on a trouvé une experte boo xamante ne elle va mieux mm. nous expliquer l'utilité de la réflexologie. ñu dem xoolee élément bi. Eh. réflexé réflexologie la tudd euh, yenn mhm. saa yi ñu gis ay mbir dañuy foog ni amul sax Sénégal alors que am na fi quoi exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek doomu réew bi sa su dañuy dem di gëstu li nga xamante ne moom moo di ay méthode yeneen dëkk léegi nag li ci gën mooy moo ñoom ñoom dañuy dellu siwaat fii ci Sénégal di ko fi def parce que comme ni ñu leen ko waxee woon ca ndorteel ba benn médecine traditionnelle chinoise d'habitude moom la ñuy def comme ni ngay waxee tamit sànq ak acupuncture nga xamante ne beneen technique la bu ñuy utiliser ay puso xeetu fajin yoo xamante ne c'est c'est traditionnel maanaam doo soxla di utiliser li nga xamante ne moom moo di ay produits chimiques wala ay produits yoo xamante ne daal daf lay sonal lépp ak loxo moom moo koy liggéey donc comme ni mu ko waxee woon sànq rek il faut savoir que le corps humain de l'homme ou bien le corps humain excusez-moi se retrouve sur la plante des pieds maanaam ci tànk daal bu fekkee da bëgg traité lenn loo xamante ne mi ngi ci sa yaram xamal si ci li nga ne moo di organe bi nga bëgg a traité mm-hmm. yenn saa yi nga góom ci bopp sax am càqaar ci suuf waaw kañ exactly voilà maanaam <laughs> lépp la te comme tout temps ni ma koy waxee tu sais <laughs> <laughs> wax nañ ko donc même boo demee ci technique de massage normal saa yu nit yëgee coono et tout dañ lay naan tout le temps phase de terminaison yi mooy del del del del mujjee ci tànk yi del mujjee ci loxo yi parce que coono ci la nit ji gënee yëg coono donc même boo defee soin ba pare day laaj tout temps ñuy def ay massage sa coono la day wàññi lépp loo xamante ne stress wala fatigue la donc bu ñu waxee réflexologie nag dafa am ñaari xeet dafa am benn réflexo réflexologie plantaire maanaam bu tànk bi am na beneen réflexologie boo xamante ne c'est ma mère maanaam ci loxo yi aussi nañuy utiliser ah di ko masser pour dindi li nga xamante ne moom moo di ay xeetu feebar ak yenn euh, mbir yi voilà donc mm-hmm. tànk des koy toppatoo parce que ni ñuy dégg léegi ci reportage bi euh, tànk dafa am dund ah exactement day dund voilà tànk day dund donc euh, léeg-léeg aussi man li ma ci jaaxaloon dama ko doon laaj mais à partir de quel âge nañ ko war a mun a defee tout ndekete nag ñëpp mun nañ ko def dañ leen di ko def mais il faut savoir bu fekkee ne ak bébé la on demande à faire moins de friction parce que xeet boobu yëpp ak loxo yi nañ koy defee comme ni ma leen di ko waxee mais ay pression la maanaam ay bës donc booy bës il faut que bës boo xamante ne day dëgër pour nit ki mun ko yëg donc bu dee xale la bébé c'est plus fragile dinañ ko faj parce que bébé d'habitude dañuy am ay problème de bronchite ay problème pulmonaire mhm. donc mun nañ leen defal la même chose mais ce sera avec des pressions plus douces mhm. plus fragiles ou moins rigides mhm. maanaam nank lay doon ay effleurement mais ba tey mun nañ ko traiter maanaam daal bébé mag ak ndaw ñëpp mën nañ ko def. di ko conseiller nag réflexologie. Euh, pour ngeen xam fi ñu koy defee euh, contactez nous peut-être après on donnera l'adresse. ak euh, yenn ci ay sinon retrouver toutes ces infos sur gfm.sn. Mm-hmm. wala sax ci chaîne YouTube ak télévision.